fu ñu natt seeraay gi rek weesu na loolu quoi ba maanaam may wax ak yow nii jënd kilo soble nekk lu jafe loolu fii ci marché Darou Rondane ndax kilo soble bi ñu ngi koy jaayee 2500 bu nekkee prix ba nga xamante ni par rapport ak ba njëkk li mu doon jar soble bu mu doon jar ay par rapport ay 400 may wax ak yow tey jii nii nga jënd ko 2000 sax day nekk lu jafe lool wala nga tànn ba sonn te duñ la jaay am na benn waay bu nekk nii ñu jar moom ñu jaay bon arrêté nee na juróomi téeméer lay kilo soble day jar instant bi ñu pour mu jaay sax ngir euh, jafe ay clients yi nga xamante ni bëgg nañ soble mënuñu ko am sax moo waral maanaam yi jafe-jafe nga ne loo soble waaw soble 2500 lay jar waaw ndax marché occas lañ koy jënde boo demee yaa ngi koy jënde ne yaa ngi koy jënde 2300 fayal ko bascule boo ñëwee teg ko doo ko mën a jaay waaw lii moo am marché daara mën naa rek soble dafa manqué waaw lii tax na waaw mais parce que deux mille. léegi lay wax. waaw mais xam nga ne gën a luñu bu ñu sañoon soble am fi yëf yi ñu mën ko jaay lu mu gisee noonu mënoo demee fii si marché Daaru Marnaan jënd soble daal nekk na lu jafe loolu li ko waral mooy soble bu manqué depuis barki démb ba léegi daal gis saako soble daal pour nga jaay ko nekk na jafe lool fii si marché Daaru Marnaan ba amal na li nga xamante ni mooy màggalu suñu Seex Mbàkke bu Sëriñ Tuubaa gi nga xamante moom la amal fii euh, mu nekk la nga xamante ni jafe na loolu sama gars yi nga xamante ni ñoo jaay soble daal jaay soble daal nekk la nga xamante ni lu jafe lool la ndax li ko waral gis soble daal day nekk lu jafe lool fii nga xamante mooy diwaanu Touba Sidi Ba